bismillahi rahmaani rahim ahousubillahi mina sheytaani rajim laa xawla wala ñu ngi wax euh, lay Makhtar euh, Cambérène gi yëpp di nuyu Sénégal gi yëpp di nuyu àdduna gi yëpp fu waay nekk di ñu déglu ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay jaajëfal di wax tamit ni waa Cambérène ñun Pastef Cambérène am nan euh, fierté am nan contentement lool ci euh, seen gunge bi ngeen xamante ni yéen a koy gunge le président Diomaye fay euh, et son premier ministre président Ousmane Sonko ndax ku xool euh, score ou bien performance yi nga xamante ni Pastef Cambérène mi ngi ko nekk di def ci at yi ñu génn au niveau de la commune di nga xam ni la population cambérénoise et une population qui épouse le projet ba waral euh, saa yu ñu demee di laajte rek dañ ñuy jox de ce fait nag mooy waral bu fekkente ni dañoo nekk ci parti di ci gis euh, ay mbir yoo xamante ni yaakaar nañ ni mi ngi ciy xew war nañ ci mën a waxtaan mais balaa loolu rek tamit ñi ngi ñi ngi nuyu bu baax a baax sunu xalif général Mamadou Makhtar Laahi ak axlu bayti rasul bi yëpp teg ko ci moom jaarale ko ci moom mu wàcc si njabootu Baay Laay salaam yëpp. di leen wax ni am nañ si ñoom contentement wax dëgg yàlla maintenant dañ doon rappeler rek ni Pastef Cambérène c'est une famille benn famille la kenn mënu koo xar ñaar ñuy nit ñoo xamante ni ay patriotes dëgg lañ yu ancré wu ci projet bi di liggéey liggéey bu am solo au niveau communal au niveau départemental surtout même tamit au niveau national ndax Pastef Cambérène ku ko xam-xam ne desul gannaaw ci xeex bi avant ñuy nekk au pouvoir gis nañ taxaw bi nga xamante ne taxawaay bi na amoon ba nekkee aussi tamit au pouvoir ba tey bàyyi de par nos actions citoyennes yi nga xamante ne ñu ngi leen di mëne euh, régulièrement amul loo xamante ni parti bi da koy woote si lu jëm ci lu doole di laaj lu xam-xam di laaj lu xel di laaj wala lu lu lu poche di laaj te duñ ci gis euh, parti euh, Pastef Cambérène kon ñu ngi réitéré sunu loyauté ak sunu engagement ci la section communal de Pastef Cambérène mais surtout ci projet bi nga xamante ni c'est le président Diomaye fay moom moo koy porté nekk suñu président euh, ñun ñëpp euh, maintenant boo gisee li waral ñu convoqué euh, conférence de presse bi ou bien point de presse bi c'est juste pour parler de l'actualité mais aussi pour wax ci parti bi nga xamante ni moom la ñu bokk muy Pastef dafa am ay chartes yoo xamante ni da ko tënk bokk na ci charte yooyu ci ko xool ci carte de bi ci ginnaaw di nga gis ñi ciy wax ni bu fekkente ni dafa am ay nit yoo xamante ni dañoo bëgg pour ay problème euh, ay intérêt di mooy crypto personnel yoo xam ñu bëgg ko maanaam jëfandikoo parti bi te amul benn fondement boo xamante ni c'est légal ou bien licite jot na ñu taxaw nag seetlu li tax ñu war wax loolu mooy que ni am na loo xamante ni jot na fee jaar si ñi nga xamante ni moom lañu ñu tànnee suñuy suñuy ñi nga xam ne ñoom la ñu war représenté ci pencum ndaw réew mi ñu koy wax polémique autour euh, des candidats à la candidature aux élections législatives euh, du 17 novembre 2024 euh, bokk na ci benn boo xamante ni mën nañ ko jàppee lu dul lu dul yoon muy lu ñuy wax une absence de con de de de concertation te ku wax absence de concertation di nga wax forcément absence de consensus mooy waral bu fekkente ni parti bi nga xamante ni moom moo ñu régir ci lan jokk daf ñu incité daf ñu recommander à que ñu concerté wu à la base avant ñoo présenter ay candidats yaakaar naa ni li gënoon rafet. mooy sunu coordinateur Boubacar Diallo ñu koy nuyu bu baax ndax jàmbaar la gis nañ ko li nga xamante ni moom lay liggéey ci parti bi ba mu fi nekkee ba tey xam nañ ko gis nañ liggéeyam maintenant dañ bëgg rek nit ñi xam ni lii du problème crypto personnel on n'est pas pour une personne nekk ñu fi pour ay nit mais dañ fi nekk pour des principes dañ fi nekk pour des euh, valeurs yoo xamante ni moom moo ay ay droit la ñuy la ñuy la ñuy défendre euh, bokk na ci absence de concertation boobu noonu dëgg la durée bi gàtt na pour ñu mën a euh, déposer suñuy candidat suñuy candi euh, candidat à la candidature mais li nga xamante ni moom moo gënoon yoon gënoon rafet comme li nga xamante ni moom la ko ñu bëri nekk ci parti bi ci bureau bi defoon comme proposition mooy qu'il une concertation avant le dépôt de candidats qu'on puisse trouver au sein du parti deux voire même trois personnes qui pour aller représenter le parti ou pour pourront aller être des candidats à la candidature voilà maintenant nag gis nañ ni loolu sama avis personnel la de pas d'après li nga xamante ni moom laa ci am comme ay ay sources euh, le coordinateur Boubacar Diallo defu ko li tax defu ko parce que dafa mel ni multitude de candidatures yi day loo xamante ni dak c'est quelque chose qui lui est favorable lu tax mu favorable ko mooy bu nit ñëpp déposé ba pare yow si seen bopp nga xamante ni tu le coordinateur tu n'as pas appelé à un consensus tu n'as pas appelé à une concertation nga bëgg plus de vingt et quelques candidats déposés au niveau de la commune de Cambérène qui ne compte que soixante-dix euh, moins de soixante-dix mille am euh, bu boobaa ça pose problème li tax nag ñu ni ça pose problème parce que les partis défendre son euh, sa propre candidature et c'est malheureux ndax bari woon na nit ñoo xamante ni légalement c'est des militants de PASTEF ils ont le droit de se positionner il ont le droit de demande de d'être candidat mais ñun ñëpp bu fekkente ne dañoo nekk candidat li ci gën a rafet mooy balaa ñoo dem kenn di ñu xamal dara mais ñun ñu waxtaan bu fekkente ne moom en tant que coordinateur daf ko bëgg nga ne man dama bëgg ngeen yebal ma ma dem su ma demee lii ak lii ak lii ak lii bu boobaa yàlla xam na ni gis naa ni fii ñu bëri ku nekk mën na ko bàyyi mu dem mais boo deful loolu dem ci réunion boo xamante ni elle s'est tenue le samedi 21 septembre Euh, deux 2024 vers 16 heures jàpp une heure du matin réunion boobu jeex ñu gis ni yow ta candidature a été rejetée a été a été n'a pas kon waroo mën na ñëw nit ñi taxaw di xaar nga defal leen benn compte rendu jusqu'à présent fi mu leen waxee nii du compte rendu bi du kenn koo xamante ni euh, defal na la ko rétention d'information lañ koy wax te loolu doon na mën nañ ko jàppee une haute euh, trahison te loolu parti bi juu ko ko ndax ay article 26 article 26 merci le juriste Assane Kébé macha <laughs> léegi loolu bu fekkente ni euh, dafa am yoon la nag tey jii ñun ñu toog ñu ñu ñu ñu waxtaane ko te loolu bokk na ci li nga xamante ni moom moo tax ñu convoqué yi ndax ba tey jii ñu toog fii ñëpp amul kenn koo xamante mën na la wax ni euh, lii leen wax ca sa réunion boobu te plus grave c'est quoi mooy samedi jeex na dimanche ba lundi ngay incité les militants ou bien les candidats à la candidature à aller déposé je pense que ça c'est c'est c'est malhonnête c'est malhonnête ndax ñu jiwuñu ko loolu te pour dire aussi encore leneen rek pour muy simple nous ne sommes pas pour des guerres de positionnement Pastef Cambérène le coordinateur s'appelle Boubacar Diallo moom mooy suñu coordinateur loolu il est légitime waxuñu ko mais bu fekkee ne dafa am ay pratiques yoo xamante ni mu ngi fi am te ñu xool ko demul en l'encontre des valeurs des principes du parti c'est très normal ñu taxaw fustiger ko pour nit ñi gën ñu mën a euh, pour ñu gën ko mën a bàyyi xel pour bu ëllëgee ndax ay échéances ñu ngi ñëw te ñaanal yàlla lii nga xam ne am na fi di fi pour ne pas être long xam naa je vais m'arrêter là pour le moment. voilà on y reviendra c'est un point que qui sera développé euh, avec euh, avec euh, honnêteté et avec euh, voilà précision incha allah il y pas de problème. parlant choix honorable Fatou Ba bi nga xamante ni ci quatorzième législature moom moo nekkoon euh, euh, député bi nga xamante ni moom moo jógee Cambérène bien vrai que ni euh, list départementale la ja la ñun xam nañ loolu du loo xamante ni dañu koy ñu jéem gëmloo ni elle elle n'a pas été par la commune département loolu dëgg la maintenant comme absence de consensus boobu dafa am Fatou Ba ak Boubacar Diallo. laay waxandoo ñoom ils n'ont pas été mandatés par le parti ou par la section communale ñun tooguñu waxtaan suñu biir ni ñaar ñii ñooy suñuy candidat loolu benn la Boubacar est parti défendre sa candidature moom dafa dem défendre can candidature am euh, beneen bi ñi ngi dégg ci ay euh, ci de source sûre que ni Fatou Ba dañ koy investir ci liste nationale ñoolu nag lañ bëgg a waa Cambérène bi nga xamante ni ñu ngi ñuy déglu ñëpp ndax dégg nañ seeni wax dégg nañ seen i alerte dégg nañ seen i artu yi ngeen xam ne yéen ñu koy artu ndax lu li fi xewoon ci deux ans yi jàll ci taxawaayam bi nga xam ne waroon na ko am ci parti bi waroon na ko am ci parti bi mais surtout waroon na ko am ci commune bi ci commune bi ndax commune bi fii Cambérène dafa am ay réalité am la mën na am du kun jox portefeuille wala dara mais présence am dañ koy soxla bu baax a baax si si sûreté religieuse bi nga xam ne nekk nañ fii dafa bëri ay activité dafa bëri ay cérémonie yoo xamante ne dafay am mais surtout li ëpp solo mooy dañu soxla koo xamante ne boo demee ci hémicycle bi da nga fay wax les griefs danga fay wax les mots MAUX de Cambérène te yooyu nag malheureusement si bu fekkente ne da ngaa xaw sori Cambérène tuuti pour nga xam problème yi ñuy daj si lu mel ni sunu stade yi si lu mel ni dëkk bu toll ni Cambérène boobu ba tey mënul am lycée si lu mel ni problème de marche si lu mel ni assainissement yi nga xamante ni mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi ñuy mi ngi mi ngi ñuy sonal kon bu boobaa duñ mën a jëlaat suñuy euh, kaddu ni ko yow yaa nekk sunu sunu sunu sunu candidate loolu moo waral ci liste nationale bi nga xamante ni dañ ko ci euh, investir la section communale dégage toutes ses responsabilités et son engagement li tax ñu wax loolu mooy que ni nan xam ne du ñun ñoo toog woote réunion waxtaan ni moom mooy suñu candidat moom mooy suñu candidat du moins loolu amul te comme que amul nag bu dee dañ ko fay dañ ko fay dañ ko dañ ko tabb ci liste yi nan xam ni boobu Cambérène ou bien la euh, section communale de Pastef Cambérène dégagé na ay responsabilités maintenant bu loolu jàllee dañuy ñëw ci euh, enjeu yi Cambérène ñu ngi jëm ci ay élection yoo xamante ni élection législative la te élection législative yi du yoo xamante ni dañuy tabb doomu Cambérène par exemple jox porte portefeuille wala dara ni ko am doxalal dañuy tab ay euh, ndaw pen euh, pencum euh, ndaw réew mi ñu dem fa pour man di voter ay loi pour man di abroger ay ay ay di man di di man di xaatim ay loi pour mu pour mu gën a jàpp mais aussi dañuy bëgg kii di président Diomaye fay mu euh, am fa benn majorité confortable bi nga xam dina ko permettre mu mën a doxal politique ni mu waree ba Sénégal bi nga xamante ni moom la ñu bëgg bu meilleur ñu mën koo ñu mën koo am te loolu nag pour mu am ñu ngi leen di woo laay maxtaar yéen waa Cambérène yépp ngeen génn massivement le 17 novembre dem vote ji ndax vote boobu ngeen di def vote bu leen nangu kenn gëm loo leen ni doomu Cambérène nekkul ci liste yi jarul may vote ji loolu wax ju wax ju yàqu la pourtant doomu Cambérène nekkuloon ci élection présidentielle te génn nañ dem vote ji bii aussi c'est pareil ndax c'est nootu président Cambérène ci Sénégal la bokk te pour ñu développer ko président de la République son excellence Bassirou Diomaye Faye li nga xamante ni mooy majorité da koy soxla moo tax ñu leen ci woo yéen ñëpp incha allahu rabbi pour ngeen génn voté ji massivement le 17 jox ko une majorité confortable ñu ngi leen di jaajëfal rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala asrafil mursalin saydina wa maulana muhammad allahuma salli ala saydina muhammad nabiyyil ummin allahuma salli ala saydina limaam lail mahmil muntazar donc euh, aujourd'hui euh, la session communale Pastef Cambérène euh, tenait à se réunir pour faire face à la presse mon nom est Moussa Mbenga Je suis membre de PASTEF Cambérène, président de la commission euh, sociale et citoyenneté. Comme l'a si bien dit mon frère, le porte-parole du parti, le chargé de comme On va essayer de faire un résumé sur le point de presse qui nous réunit aujourd'hui. Donc, comme rappel, il faut savoir aussi que le, la commune, la section communale PASTEF Cambérène, tenait à réaffirmer aussi sa loyauté envers le parti sa loyauté envers les décisions venant du parti, venant du président Bassir Diomaye Faye et de son premier ministre, son excellence euh, Ousmane Sonko. Sonko. Donc, cette loyauté, encore une fois, nous la réitérons et vous dire aussi que ce point de presse n'est rien d'autre qu'une alerte, une alerte à l'encontre des autorités du parti et l'arrêt est souvent bonne parce qu'il tombera dans des oreilles qui, je pense, auront la possibilité d'analyser cette alerte. Donc l'alerte concerne ce manque de considération de la part des autorités en l'envers ou à l'encontre de Cambérène. Vu la spécialité, vu le statut religieux qu'a Cambérène, donc je pense que il était un peu nécessaire ou bien il était nécessaire de avant de prendre quelques décisions, de nous concerter, concerter ou bien de voir quelle était la position de Cambérène suivant certaines décisions. Il est, il bon de, de, euh, de rappeler aussi que ce manque de considération va jusqu'à Cambérène va recevoir des autorités ou bien avoir des visiteurs venant du parti sans que la session communale ne soit informée. On se réveille du jour au lendemain Et voilà, on a un ministre qui va venir, on a le président qui va venir, ainsi de suite. Et nous tenons à alerter aussi pour leur dire que si une autorité, si une autorité tenait à entrer ou bien serait appelée à entrer ici à Cambrai, qu'on nous avise au moins, qu'on puisse savoir que la session communale est là pour qu'il l'accueille, pour qu'il montre au moins que Pastef Camberen est ici à Camberen. D'accord. Donc, ce manque d ce, pour, la, pour euh, la partie procédure, on a constaté une absence de concertation. Et comme l'a dit mon frère, cette absence de concertation nous a valu beaucoup de problèmes. Aujourd'hui, à l'heure actuelle où on parle, une réunion s'est tenue, le Durant cette réunion, jusqu'à présent, personne, personne ne nous a dit ce qui s'est passé autour de cette réunion. On n'a aucune information sur sur les dépôts de candidats à la candidature. On avait appelé pour qu'on puisse faire une rencontre pour avoir au moins quelqu'un qui quelqu'un ou bien deux personnes qui allaient nous représenter mais au finish on a vu que le coordinateur est allé déposer des listes et jusqu'à présent on ne sait même pas la liste ou bien le nom de qui il a déposé et de source on nous dit que le coordinateur a déposé une fiche lui concernant lui seul et ça c'est inadmissible c'est inadmissible. Si c'est avéré, c'est inadmissible. C'est inadmissible qu'on puisse déléguer quelqu'un pour qu'il aille nous représenter, faire un dépôt de liste et qu'au finish qu'on nous dise a fait une dépôt pour lui Et ça, c'est à rectifier. Et on a fait appel au parti, on fait appel aux dirigeants du parti pour que ce qui se passe à Cambérène ne puisse se passer nulle part, nulle part au Sénégal. Parce qu'on est, on est appelé à faire valoir le djoub, le djoubel et le Et si on est appelé à faire ça, on doit être les premiers à l'être. Maintenant, sur ces rétentions d'informations aussi, j'en ai parlé lors de cette réunion du 21, où on a mandaté notre coordinateur, M. Bassi, M. Boubacar Diallo, qui est allé. Et jusqu'à présent, personne ne sait ce qui s'est passé lors de cette réunion. Et nous trouvons ça déplorable. Pour le choix, pour les enjeux aussi, mon frère l'a dit, l'a si bien dit. Cambérène, vu sa spécialité, on nous interpelle, nous, représentants de PASTEF à Cambérène, pour qu'on puisse au moins, c'était le souhait des Cambérénois, avoir quelqu'un qui, à l'hémicycle, pouvait défendre les idéologies cambérénoises, avoir quelqu'un qui sera un porte-drapeau pour la commune de Cambérène. Et malheureusement, on a vu ce qui s'est passé. Et ce qui est déplorable, c'est qu'il n'y a pas eu de concertation lors de ces appels à, la candidature. Et nous pensons que dans les échéances à venir, le parti Euh, prendra les euh, précautions qu'il faudra pour que ce qui s'est passé lors de ces procédures d'investiture ne puisse se reproduire. Et je pense que euh, c'était l'essentiel mm, de, de ce communiqué. Mm. Mamoudou Hassan Kébé, membre de PASSEF Cameroun. Bon, concernant la question, si on a fait une concertation avec le coordinateur pour savoir ce qui s'est passé lors de cette réunion, on a interpellé le coordinateur à plusieurs reprises. par téléphone dans le groupe WhatsApp pour qu'on organise une réunion, faire le résumé de cette réunion. Parce que toutes les communes, toutes les communes de Dakar, leurs coordonnateurs ont organisé une réunion après cette rencontre du samedi. Mais il n'a pas fait ça. C'est-à-dire qu'il y avait eu des suspicions de magouille. Et on l'a bien dit. Et l'article 26 de notre statut dit que le militant a droit à une information. Le militant qui n'a pas l'information, c'est-à-dire peut écrire le parti. S'il y a défaillance du parti, c'est-à-dire il peut donc dénoncer ça à travers les médias. Parce que PASTEF, c'est des principes et des valeurs. C'est en dehors de ces principes et de ces valeurs, PASTEF n'est rien. Donc, c'est-à-dire on est là donc pour redorer le blason. On n'est pas là pour défendre, c'est-à-dire on dit que le linge se lave en famille, mais on aime quelqu'un, mais on, on, le châtie bien. Parce que le coordinateur, il a été élu des principes. Dès lors, c'est-à-dire qu'il que ces principes. On doit donc dénoncer ça et publiquement. Et actuellement, moi j'ai adressé plusieurs courriers au parti, mais le parti ne répond pas. Et la, la députée, l'honorable députée Fatba m'a clairement dit que cest le parti ne va pas répondre parce que les autorités du parti sont actuellement en train de confectionner les listes. Donc ils n'ont pas le temps de répondre. D'où l'urgence, d'où l'importance de cette conférence de presse. Donc, nous sommes les représentants de Cambren en quelque sorte. Les habitants de Cambren sont dans le besoin et ils ont fait des choix. cest dire on est dans un système représentatif. L'Assemblée nationale est une institution importante du pays. Dakar compte 19 communes, mais la commune de Cambren, c'est la seule commune religieuse de Dakar. À Dakar, on respecte Cambren, on respecte Yoff. Cambérène, c'est-à-dire à sa spécialité. Et on doit donc respect à cette spécialité. Et c'est-à-dire c'est aux populations de Cambérène donc de réclamer ça. En tant que membre de la section communale de Cambérène, nous venons donc faire ce qui est de droit, c'est-à-dire notre fonction de député entre guillemets de la commune parce que nous sommes interpellés par les populations de Cambérène. C'est dans ce siège, c'est pourquoi on est là pour vous expliquer les manquements qui ont eu lors la procédure donc des cest à euh, la procédure pour déposer des candidats à la candidature. Il y avait eu presque 19 mais au finish, on nous a de source sûre que, cest à y une seule personne qui a déposé ses fiches. Et malheureusement, c'est le coordinateur. Pourquoi il ne communique pas Et pourquoi ce manque de communication C'est ça le problème. Il a par les femmes, il a été interpellé par les anciens, il a été interpellé par les professeurs, il a été interpellé par les jeunes de la GPS. Il n'a pas répondu. C'est pourquoi on a tenu ce, ce point de presse. maa ngi nuyu xalifa bi jaaraat ci taala rek nuyuwul na ma xalifa bi nuyu président de la république nuyu aussi Ousmane Sonko mi nga xamante ne moo ñu sawarloo ci politique ndax jox na doomu daara palaasam ci wàllu politique ba ñu am ma dab ni ñu amee JPS am magi Pastef aussi ñoom ñëpp ñu ngi teew fi donc euh, Mujib aussi waaw JPS ñoom ñëpp ñu ngi ziyaare ñëpp di nuyu ñëpp euh, li may tënk rek jox sama rakk ji mooy ci wàllu tànn député yi bi ñuy tànn député yi de suñu coordinateur coordonnateur Boubacar Diallo dafa dugg ci groupe bi ne ku bëgg nekk député joxeel sa tur wutal casier judiciaire wutal nangam ak nangam am na sax ñu doon wax ne waru waru ko defee noonu mais man rafetlu woon naa ko ci biir group bi parce que man ci loolu transparence laa ci gis mais bañ demee ba ci biir am na yeneen yu ci xew yoo xamante ne gars yi ñëw na ci duma ci delluwaat mais maa ngi nuyu aussi njiitu modab national muy oustaz Tahirou Pape conférence de presse bi modab defoon keroog ne Ousmane Sonko jox jox nañu ñeenti député ci liste nationale muy sëñ Bamba ak euh, Dramé ak aussi xujja mi nekk yof mi nga xamante ne moo ñu moo ñu jiite fii ci Dakar ci Modap ak beneen soxna bu nekk Thiès ci liste nationale mais Tahir Fall dafa ne liste nationale bii ñu jox quatre députés pour Modap yemul foofu yéen waa Modap fu ngeen nekk ci commune yi dem leen ngeen postuler fa donc bi loolu amee Boubacar wax ni nañu joxe suñu tur ñu joxe suñu tur joxe li ñu war yëpp mais dañuy dégg ne ay kàddu ne ñun ba ñuy joxe suñu tur sax fekk ne yëf yi paase na donc loolu dafay nuroog ne maanaam sonn na leen seen bopp dem euh, fële wuti seen i këyit mais du dem fenn loolu nag bu dee noonu la demee ñaawlu nañ ko ñun ñëpp ah en tout cas man ñaawlu naa parce que aussi peut-être bu ñu yeggee ci mairie kenn la ñu tànn. peut-être président kenn nit moo koy nekk mais député ñu bëri mën nañ ko nekk député sax du rek intellectuel yi même menuisier maçon et ñëpp mën nañ nekk député donc ci looloo taxoon ni ko Tahir Fall waxee woon ñu nit ñu postulé mais fekkee ne tey parti bi dañu jékki-jékki dégg ñu ngi joxe ay CV ñu wax ko ci groupe bi wax ko ci groupe ba mujj bi ñu ne andi leen seen CV ñu jël suñu CV jox suñu coordonnateur te yéene woon nañ ko aussi moom mu nekk député suñu jëlee suñuy CV jël suñuy këyit jox ko li gën a rafet mooy yëf yi yegg même bu ñu tànn nañu suñuy këyit di yegg fi muy yegg loolu daal laa doon fàttali rek ci tënk bu ko defee jox sama rakk ji jërëjëf Ibrahima Ibrahima suur bi nan la aleykum di wax laay maxtaar ñi fi teew ñëpp waa je vais me présenter comme Mame Seydina Issa Laye Diop mais tey damay présenter wu comme un digne fils de Cambérène bokk ci parti bi nuy wax Pastef Cambérène nag comme ni ko fii ñi daanaka wax nañ lépp man damay def benn synthèse bu ndaw rek Cambérène dafa am spécialité mooy réalité la boo xamante ni am na fi mooy cité religieuse mais li ci solo li ñuy wax tey fii mooy Cambérène mën naa ni am na plus de dix mille sympathisants de Pastef tey élection bii jàll am nañ plus de dix mille voix donc kon fii nii tey lépp lu ñu fi war a mën a def dañ ci war a concerté wu tey ñu dem ci élection législative lan la ñuy dénoncé fii mooy lan pourquoi 23 candidats à la candidature ci Pastef Cambérène am nañ droit déposer loolu la lool la suñu coordonnateur wax dépose dépose ku am ku bëgg déposé na déposé ñëpp déposé déposer nañ muy 23 léegi pourquoi bi ñu demee ba réunion bi am la le 21 septembre la le coordonnateur Boubacar Diallo ak lu fa mën a xew sax mais na def compte rendu ni lii ak lii moo fa xew pourquoi yeneen coordonnateur yi bi ñu demee seen commune def nañ compte rendu jusqu'à la lañ mën a wax. que ici à Cambérène suñu coordonnateur amul kenn ku mu defal compte rendu même ci 23 candidats à la candidature yi loolu du dëgg du yoon ñun loolu la ñuy dénoncé Cambérène nag ñun ñii ñëpp li comme ni ko Assane Kébé waxee léegi ñun ay député la ñu Cambérène ñun ñoo war a mën a xeexal Cambérène waxal Cambérène Cambérène nag képp ku fi bëgg a jiite li nga war a def mooy lan respecter réalité dëkk bi jiital intérêt dëkk bi mais pas intérêt sa bopp yéene nañ ku nekk mu nekk député mais tey képp kuy nekk député si turu Cambérène lu li li ngay njëkk a def avant sax ngay candidaté mais nga concerté wu xam réalité Cambérène xam tey fii yan problème lan ñoom Cambérène tey li ëpp solo mooy la problème d' assainissement kan mooy taxaw di ko wax la Fatou Ba nekkoon na député mais est ce que mosoon dégg mu taxaw wax ci euh, assainissement Cambérène tey jii ñëpp am na lu leen metti ndax assainissement bi am na ñoo xamante ni tey bi assainissement bi di jàll dañoo arrêté woon seen fosse yeeg yëpp am na ñoo xam sax li gën a li ma gën a metti mooy koo xamante ne doon tabax këram ñu ni ka assainissement mi ngi jàll jarul ngay def fosse bu mag mu def fosse bu tuuti mais presque chaque semaine dina woo ku koy vider deux fois Cambérène sonn nan léegi tey boo fi bëggee nekk député nga ni doo concerté waa Cambérène ça veut dire que ëllëg boo nekkee député représenté wala téye flambeau de Cambérène doo refléter euh, les les les mots de Cambérène kon ñun liñ fi li ñu fi jot li li ñuy fi téye mooy que ni ñun dañuy dénoncer pratique yi fi am mooy le coordonnateur lépp lu mu war a def da ci war a def en tout transparence jub jubal jubbante lan woote donc lépp luñ fi war a def fii nii dafa war a ànd ci transparence ñun ñii nii ñëpp amuñu fi kenn koo xamante ni dafay def guerre de positionnement ndax bi ñuy dugal ci Pastef postu taxul wala ay intérêt personnel taxul intérêt commune moo ñu moo ñu dugal ci Pastef te balaa ngay wax don de soi pour la patrie nga wax don soi pour sa propre communauté wala pour sa commune ñun nag ñi fi teew nag bëgg nañ lépp loo xamante ni day am fii Pastef Cambérène mu leer wasalaam jërëjëf